jërë ngeen jëf mbokku internetu sénégal 7 point com ñu ngi leen di gërëm bu baax baax di am mbégte ak contentement euh, di leen euh, retrouver wu à chaque fois si ay programme sénégal 7 point com rawatina nag sur le terrain Euh, ñu ngi fi nga xamante ne rek moom mooy euh, sa tribunal bu Dakar euh, si fàttali ni rek tey ji nga xamante ne rek le doyen des juges kii di Maham Diallo war a fas yéene daal di jàkkaarloo rek ak ki nga xamante rek moom moo di journaliste bi di Pape Alé moom Pape Alé Niang nag ginnaaw bañ ko tegee loxo mu daal di tëdd. Euh, benn weer euh, si kaso bi euh, moom nag si fàttali na ñu ko yóbbu woon sa kaso bu kotaan ndiki tey nag si ajuma ji ajom juróom-ñeenti fan si weeru décembre bi lañ ko fas yéene rek daal di wooluwaat ngir dégluwaat ko si lu jëm si li nga xamante rek moom moo di ginnaaw bañ ko tegee woon loxo moom Pape Alé nag ginnaaw ay révélation yoo xamante ni daan na ko doon def si li nga xamante rek moom moo di rapport internet de la gendarmerie nationale bi nga xamante rek daan na doon def ab benn live si vidéo boo xamante ni euh, moom Pape Alé ñaa doon na rek euh, euh, siiwal li nga xamante rek noonu la li nga xamante rek moom moo di enquête bu rapport bu gendarmerie nationale doon amee foofee sa diwaanu sa li nga xamante rek moom mooy si lu ñeel dossier Ousmane Sonko ak aji Sarr waaye nag si jamono ji nga xamante rek daal nañ koy rajee kii di capitaine Seydina Omar Touré moom Pape Alé Niang nag doon si def ay révélation yu yu doy waar ba tax na nag ñu daal di koy jàpp yóbbu ko eh, ngir mun ko rek daal di eh, def mandat de dépôt donc tey ji nga xamante rek moom eh, kii di Pape Alé Niang war a jàkkaarloog ak kii di Maham jàlloo ndiki tey si àjjuma ji donc fi mu ne nii nag 9h47 minutes moom moo jot bi ñu ñëwee nag wax dëgg yàlla gisaguñ oto boo xamante rek am nañu yaqin na Pape Alé Niang moo ñëw wala ñëwagul loolu yëpp daanaka am amaguñ ci dara lu ñu leer waaye daal la ñu jàpp ne euh, convocation bi euh, tey jii nii la war a jàkkaarloo ak doyen des juges bu 11h euh, si suba gi jotee waaye nag jàpp leen ne jamono ji nga xamante ni rek ñu ngi fii si diwaanu tribunal bu Dakar moom tey ji nga xamante ni rek lépp lu ñeel lu gën a fës si information yi dina leen ko toppal ngir ngeen xam exactement. fan la euh, yëf yi euh, yëf yi nga xamante rek moom Pape Alé Niang war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ni alors mooy euh, le doyen des juges xam Diallo war a war a continuer ak war a yem si lu jëm si li nga xamante rek moom moo di si déglu bi nga xamante ni war nañ koo dégluwaat alors si fàttali nag moom Pape Alé si ay bés yu rek doon na amal li nga xamante rek moom mooy donc grève de la faim doon xiifal donc ngir rek wan kii di résime bi nga xamante rek moom moo ko teg loxo anam bi nga xamante ni moom lañ ko tegee loxo jàpp na ne Euh, dafa rek euh, daal dañoo salfaañe li nga xam te rek moom moo di àq ak yelleefam ndaxte euh, moom journaliste d'investigation la lam doon def rek li nga rek moom mooy liggéeyam bi mu doon def moo ko permettre mu daal di def li nga xam te rek moom mooy fësal bi nga xam te noonu ko fësal li di rapport interne de la gendarmerie nationale moom Pape Alé Niang nag daanaka am na post bi nga xamante ni gis nañ mu def ko si bi muy alerte nag bi muy entamé li nga xamante rek moom moo di grève de la faim bi nga xamante ni sax doon na wax ne lépp loo xamante xamante ne rek euh, moo ko arrivé di alerter l'opinion nationale ak internationale euh, si lépp loo xamante ne rek fas yéene na ko nar a dal rek nañu muy di dànkaafu euh, ñi nga xam rek ñoom ñoo di ak kilifa yi ngir rek ñu daal di koy libéré mu ñibbi si këram waaye nag gis nañ soxnaam bi nga xamante ni tamit doon na alerter si jamono joo xamante ni sax jàppoon na ne wérgu yaramu Pape Alé Niang donc demeewul noonu ndax ginnaaw bi mu entamé li nga xamante rek moom moo di grève de la faim beneen mbir mi mooy gis nañ alarba bi weesu kii di Ousmane Sonko bi nga xamante ni dem na fa euh, fële sa euh, kaso bu Sébikotane ngir mun koo seeti waaye nag euh, bi mu daal di noppee si visite bi nga xamante ni moom Ousmane ko def na ko foofee si sa sa kaso bu sebi Sébikotane daal nay xam la sax ne Pape Alé Niang dañ ko war a bàyyi mu ñibbi ndaxte ni mu ko gisee si kaso bi daanaka wér-gu-yaramam demeewul noonu donc force bi mu amoon amu ko boo ko xoolee sax da ngay xam ne ma Pape Alé Niang na lu baree bari si li nga xamante rek moom moo di si énergie bi amoon na ko ndax Pape Alé Niang euh, jàmbaar la donc liñ ko teg jàpp na ne euh, otage politique la waaye nag jàpp ne dañoo salfaañe li nga xamante rek moom moo di ak ak yeleefu euh, kii di Pape Alé Niang donc loolu mu nekkoon visite bi nga xamante ne Ousmane Sonko defoon na ko àllarba bi weesu si kaso bu Sébikotane donc bu ñu fàttalikoo également lii di mbootaayu taskatu xibaar yi bokk na si li nga xamante ni alors moom mooy donc CAP Euh, cap bi nga xamante ni euh, correct ak yeneen euh, yeneen mbootaay yoo xamante ni ñoom tamit si taskatu xibaar yi lañ nekk te fas yéene daal di rek daal di soutenir kii di Pape Alé Niang ñoom daanaka mun nañ wax ne sax ne yàgg nañoo tëral ay plan d'action plan d'action yi nag li ko waral mooy ngir mën a soutenir donc ki nga xamante rek moom mooy le journaliste Pape Alé Niang jàppale ko wane ko wane seen solidarité wane li nga xamante ni également mooy seen soutien bi nga xamante ni ñu ngi koy apporter ci taskatu xibaar boobu noonu xamante ni euh, mooy mooy Pape Alé te liggéeyam euh, kenn dootu ko natable si li nga xamante ni rek moom mooy euh, si presse bi waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy di les jeunes reporters ak ñeneen ñi nga xamante ni daal nañuy soobu si ay mouvement moo xam fii si wàllu ndakaar moo xam également si yeneen régions yi parce que gis nañ lu si mel ni Thiès Kaolack Ziguinchor Saint-Louis ak yeneen régions yi nekk si biir réew mi ñoom ñëpp mànkoo nañ def benn say ngir mën Alla Niang euh, gisoon nañ poste bi nga xamante ni également kii di Aminata Touré euh, Mimi Touré doon euh, wax ne sax ne kii di Pape Alla Niang dañ ko war a libérer ndaxte dañoo war a dépasser li nga xamante ni rek moom mooy fu ñuy jàppee journaliste si di ko tëj ci kaso bi ndaxte kii di président de la république daf fi musoon toog si li nga xamante ni rek moom mooy si ab ay médias français doon wax ne tant mu ngi nekk njiitu réew mi du tëj li nga xamante rek moom moo di ab journaliste donc comme li mu waxoon na ko saafonte li mu waxoon na ko respecté euh, am na yeneen leader yoo xamante tamit euh, ginnaaw bi ñu jàppee euh, kii di Pape Alé ñoom tamit jot jotoon nañoo def li nga xamante ni moom moo di ay ay ay ay poste yoo xamante ni ngir soutenir kii di Pape Alé wan ko ne fi nga nekk du sa place donc liggéey bi mu doon def donc mérito wutoon ñu koy daal di yóbbu di ngir tëj ko donc jamono ji nga xamante ni donc kii di le doyen des juges daal nay woolu kii di euh, Pape Alé Niang ngir mun koo déglu tey euh, donc euh, fi mu ne nii ñu ngi xaar ñi nga xamante ni également ñoom ñoo di ay avocat wam ñoom ñi nga xamante ni tey jii fas yéene nañoo ñëw ngir mën a daal di teewa teew teewaay boo xamante ni bu ñuy déglu Pape Alé Niang ñoom it ñu mën ko assister su ko defee rek lépp luy xibaar lépp luy information si lu gën a leer si lu jëm si li nga xamante rek moom moo di déglu bi nga xamante ni alors le doyen des juges fas yéene koo déglu ak kii di Pape

sukkandikoo ñu si bari ñoo xamante ni ay taskatu xibaar la ñi ay ay politique politique lañ ñoom jàpp nañ ne Pape Alé la République teg loxo ngir rek li nga xamante rek moom liggéey bu mucc ay bi nga xamante ni moom la fi nekkoon loolu moo waral li nga xamante ni mooy ñu daal di koy teg loxo ngir mën koo noppiloo ngir mën bañ muy wax li nga xamante rek moom la xam euh, si li nga xamante rek moom mooy si dossier Ousmane Sonko Adji Sarr yëpp sama kaddu ay kaddu yi nga xamante ni ñenn ñi si ay analyse politique ñenn ñi si nga xamante ay taskatu xibaar lañ parce que kenn ku si nekk daanaka wax nga kii di Pape Djibril Fall tamit moom tamit daanaka apporté na son soutien à ki nga xamante rek moom moo di euh, Pape Alé Niang mu nekk euh, soutien boo xamante ni euh, daanaka nemmeeku nañ ko si réseaux sociaux yi loolu yëpp nekk na loo xamante ni ñu ngi koy ay yoo xamante ni ñi dañuy yëngu si politique ñenn ñi si ay taskatu ñoom ñëpp dañuy sàkku rek ñu libéré ki nga xamante rek moom mooy Pape Alé fi mu ne nii si fàttali leen ni également altine bi ñu dëgmal fas yéene nañoo woolu ki nga xamante ni rek moom mooy kii di capitaine Seydina Omar Touré moom mi nga xamante ni daanaka moom moo yoroon enquête gendarmerie euh, si dossier Ousmane sonk Adji Sarr enquête boobu nag ginnaaw nag ba mu bañ ko siiwalee daal di koy tasaare si li nga xamante ni alors moom mooy si réseaux sociaux yi parce que li ñuy toppee Pape Alé Niang mbokk yi bokk na également si euh, li nga xamante rek moom moo di si ab document bu bàyyeekoo si biir euh, li nga xamante rek moom moo di sapeur pompier si jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon woolu kii di Ousmane Sonko parce que gisoon nañ benn euh, benn communiqué boo xamante ni si sapeur pompier la tukkee woon doon wax sax ne ngir sapeur fas yéene nañ jël matukaay bu mucc ayib ngir mën a pare bu tàkk-tàkk en cas d'incendie ngir tey bu ñu demoon ba convocation Ousmane lu mel ni mois de mars bi lam amoon euh, tàkki-tàkki ak yooyu noonu sapeur jël na matukaayam euh, ngir mën a euh, def liggéeyam donc li nga xamante ni également moom mooy turu Oscar Sierra bi nga xamante ni gisoon nañ ko si ab document boo xamante ni donc ñu ko piblier woon loolu yëpp daanaka bokk na si lu ñu toppee Pape Alé Niané moom moo daal di fësal li nga xamante ni alors moom mooy yooyu les rapports donc également rapport yu tukkee si biir enquête bu enquête interne bu gendarmerie nationale donc yéen ñuy seetaan donc fi mu ne nii euh, fi mu ne nii comme ni ngeen ko gisee daanaka bi ñu ñëwee nag gis nañ euh, dispositif sécuritaire comme d'habitude mais demeewul comme ni mu daan demee par rapport ak euh, confrontation Ousmane Sonko Adji parce que dugg si bi sax tey accès bi demeewul noonu par rapport ak ni mu daan demee mais daal dispositif sécuritaire bi mooy gis nañ benn camion police boo xamante ni à côté mu ngi taxaw donc yàpp lu toll ay euh, lim bu takkoo takku si ay donc si ay ay police euh, gendarmerie également ñoom ñoo taxaw si li nga xamante ni alors moom mooy si buntu tribunal bi ñoom tamit euh, di vérifier li nga xamante ni alors moom mooy dugg ak génn bi des entrées et des sorties comme d'habitude rek daal di li nga xamante rek moom mooy def seen vérification bu mucc ay mais daal li ngeen mën a wax jamono ji daal mooy amagul dara loo xamante ni gis nañ ko fii si lu jëm si arrivé Pape Alé mais sûrement que ne Euh, puisque Pape Alé Niang euh, si kaso bi la jógee buy ñëw euh, du dugg si kat katam du dugg si otom comme ni ko Ousmane Sonko defee bu ñu ko convoqué wala keneen ak parce que comme il est en détention politique actuellement dañ ko dañ donc sûrement buy ñëw ñi nga xamante ni soit ñoom ñooy policiers yi wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay gendarme ñoom ñoo koy indi te ku ne xam na ne tribunal bu Dakar du benn porte rek moo fi am am na porte boo xamante ni pour ñi nga xamante ni bu ñu ñëwee ñoo xamante ni ñoom visite la ñuy def wala dañ fee am procès gox boo xamante ne euh, jii nii ki nga xamante ni dafa war a am procès fii si tribunal bi wala dafa am euh, surtout ñi nga xamante ñoom ñooy ay taskatu euh, mi porte bu ñuy duggee boo xamante ni tey boo ñëwee foofu ngay na ni ñoom la ñu jokkoo rawatina ay avocat wu Pape Alé su ko defee ñu xam exactement ay condition la Pape Alé accès fii si diwaanu tribunal ak ndax bu fekkee ne également na dugg euh, ak euh, Euh, euh, jamono ji nga xamante ni euh, ñu ngi koy déglu yooyu yëpp dinañ jéem a jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay avocat wam tout à lay doon su ko defee yéen ñuy seetaan ngeen xam yan condition la Pape Alé Niang ñëwee ak jamono ji nga xamante ni kii di doyen des juges mu ngi koy déglu si biir tribunal bi loolu yëpp fukki waxtu ak benn la 11h si suba gi fi mu ne nii nag daanaka 10h mooy door a jot ñu daal di leen wan li nga xamante rek moom mooy wala décrire leen li nga xamante rek moom mooy di situation bu fii xew actuellement si ak convocation bi nga xam ne wala sax janook bi nga xam te ne Pape Alé war na koo jàkkaarloo ak ki nga xam te rek moom moo di euh, donc euh, ki nga xam te rek moom moo di ko tegee la ko benn weer voilà daanaka tëdd na benn weer si si si si kaso bu euh, Sébikotane donc mbokk internet yi donc ñu ngi leen di bàyyi si kanam tuuti dina dinañ ñëwaat ak yen ñu gën a découvrir gën a gëstu li nga xam te rek moom moo di donc arrivé Pape Alé Niang ko defee ñu ñëwaat ak yéen si sénégal comme jàngeen jëf